ba tax ba man baa Babacar xam naa ne ma war a raw ba tax ba man Babacar xam naa ne ma war a raw mbooleem ku lay sant ngir yow rek yaa ma teral alhamdulillahi rabbil alamin ma jóg man sant feeti sëriñ bii may teral te ba moo jàpp àddina seppil may loram ba mu set mu jox ma nag lu tawat nekkul te ma ji day jàpp ay mbég yu rëy yoo xam ni ëpp na xel di sol ci saa xol bi ak saa kër gi sépp suba du jekki waxtu ba woowee waxtu ay tëfabul lu yéemu jox ma du man koy deeti sikkaka ba kii sell ngor sell ay jëf sell wala rëyit kii kenn gisul ku mel kii daala jot daya ba mayam yi day mel a mel nii waame fawu fi man du guddi muy dog du bëccëg maaka waaru ka ba xéwal gi day taw fi man mii sépp saa du sewet maa ngi ni xépp ak mbég maa mucc ci musiba saa kër du wow sama xol bi it du tàng ka wow alhamdulillahi santay mbir ku xam du ko ba daqal ngërëm yow ba jot koo jot ba dootu la raw kon yàlla dootu la raw saytaane dootul a jot ku def te xelit bay dàqalëf lu ko moy lu yàgg-yàgg dafay delluy jaloo ka tawat fexee la mel nib dërëm ngir ab dërëm ku ni mel noppal sa bopp neta noppal waaja yor sa mbirit doo gis dërëm naa boroomam tee nga jënde ma lëf bu koy fasit du ko naa ay waaji mbaa du ma rot rayal sa bopp te bul dekkeeti kon te nga jot ngërëm lu mag la te raw lor nag ba dootu la jot kon ñaan rek lañu mën a def ñaan ko ci am ci jeexal noonu koy ñaan nanu xëcc ba yóbbu nu ñoo ñee jëkkoon ànd ak moom nu tàbbu ca ñoom ànd ak ñoom jëm bu jëm mu jëme nu fu fam lañ jëme